Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des merci de vous abonner, merci également gars du bail c'est du commentaire, en plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations inbox sénégalais fait folle maintenant 14 régions du Sénégal ruxuru xadi gogo xadi ñi ngi leen di également ci la l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen en jàmm ñi nekk ci kaso yi nga ne aussi erreur judiciaire ak nous ñu defal moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dédoo àdduna suñu borom xale leen àjjana fi daw si gars yi te en ñu on avance ensemble dans la magie de Sport TV et de Baba Show l'actualité

am nga jour bu mel ni kii numéro 10 bu mel ni kii au niveau de l'équipe nationale du Sénégal ak kan moo fekkee jamonoy ak waa FC plutôt ak OCR ah ñeen ñoo ko fekkee woon parce que kii nii gars yi Faut que seetaan jamono pour xam le football pendant ce temps Thiago Alcantara actuellement on ngi koy du côté de l'Arabie Saoudite le joueur donc euh, d'origine brésilienne joueur également de la Roja espagnole On actuellement d'Arabie Saoudite ñoo ci beaucoup recruté, championnat bi nekk faut kii nag di Eriksen également maa 5 wax sànq ay waxam ne Christian Christensen plutôt jamono ji nag ñi nga xam ne nag donc Newcastle entre autres beaucoup na ci équipe il ferait fexe pour d'aller recruter le défenseur du FC Barcelone Dieu également qu'un donc Olivier Giroud encore buteur aujourd'hui avec l'AC c'est Milan depuis 2010 Olivier Giroud Le monde plus de 10 buts avec ses différents clubs donc on est attaquant c'est un attaquant régulier ou problème depuis 14 ans gars actuellement là mi chaque chaque championnat chaque saison minimum mu double di 10 buts pendant ce temps Florenzi l'ancien joueur également du Paris Saint-Germain Mo de dafa sur blessure hein. malheureusement moom daal blessure yi ñoo ko xaw a sonal mais c'est un excellent excellent arrière latéral mais euh, blessure daal ñoo ko il a indi ay tolof tolof ñii nak di championnat championnat Allemagne ah. donc Bundesliga le Bayern Leverkusen toujours leader nek gay au coude à coude avec quoi Bayern Munich ñoom ñooy xëccu ah ba sax jamono ji wax a leen récemment gars yi ñu ngi naan fi ne nii kii di Xabi Alonso sax le waa Bayern ciblé pour la daal remplacer remplacer Thomas Tuchel bu faites ne jël ñu championnat bi kii nag également di ah, Mukele actuellement aussi au Bayern Munich dañ see teg pour renforcer également seen effectif on a waa Paris Saint-Germain nee nañ ubbeeku nañ pour dire quoi mais à condition à condition ñu am koo xam ne mën remplacer mais aussi si ñu am koppar gu bari gu ñu teg si euh, table bi ki nga xam ne également nag muy Mamadou Sakho moom nag actuellement gars yi le championnat sud-américain daal lay waaj a dem du côté du Brésil.

Moridio numéro 23 par rapport à euh, gardien de but l'équipe nationale du Sénégal ah ngeen qui la nouveauté pour cette CAN mooy Moridiaw ndax Edouard kii di Alfred Gomis moo n'y a que demain. ah Formose Mendy dit numéro 2 bi Fodé ballo numéro 12 Sabali jël le 21 bien sûr Koulibaly le numéro 3 Ismaël Jacob 14 Abdoulaye le 22 Abdoulaye Niakhate 27 Moussa Niakhate 19 Abdoulaye Seck numéro 4 euh, bi d'ali récupéré au niveau du milieu de terrain Cheikh Kouyaté moy des gardes conservé numéro 8 Nampalis Nampalys Mendy le numéro 6 Pab Matar Diatar Boy Jess Mon Football numéro 17 Crépin Diatta Crépigno 15 Patrice Ismaël 6 11 Lamine Camara 25 Pape Alassane Gueye 26 euh, Idrissa Gane Gueye jël li nga xam nak moy numéro 5 Nicolas Jackson 7 lay jël Habib Diallo le numéro 20 Sadio Mané magnifique Mané numéro 10 Iliman Diaye 13 Ismaël Sar, Spidi Sar 18 Abdelassima Sima le 24 et Boulaye Bouledja le numéro neuf gars nak nag may laaj mariage wu Sadio Mané bi li leen wax moy que ne ah de source sûre de source sûre Sadio Mané tey jii ay booru 17h incha rabbi lañ koy takal soxna donc nak soxna si nag gars yi nekk na ko xamné aussi c'est une fille effacée jigéen la bo xamné effacée na ci réseaux sociaux doo ko gis lu bari et tout donc mais également nek na lo xamné tay tey ni donc jot na ci Sadio Mané mu daal di koy def ko turu soxna si nak duma ko wax di ngeen ko xamal seen bopp nu mu mel kan nan la kanam gi duma ko wax parce que le joueur lui-même a décidé de conserver ça mom ak njabootam ce que je peux vous dire moi, l'OL c'est confirmé il va se marier aujourd'hui hein, donc et tout et tout vous en saurez quelque chose tout à l'heure ce qui est sûr moi je connais c'est une fille assez réservée une fille qui n'est pas trop hein, qui n'est même pas, je dirais, dans les réseaux sociaux et tout, à l'image de Sadio Mané. Donc, l'ol nek no xam lañ ko jox donc c'est confirmé Sadio Mané va se marier aujourd'hui ñu mënon laaj ça je vous le confirme am tay li dess nak comme je dis duguma ci en détail parce que c'est sa vie privée mais yéen ko laaj mais aussi gars tout à l'heure je vous donne une information L'email, may ñi mayo Sénégal il faut toll mais gars le grave, le grave, le lu monumental moo nekk di xaw jamono ji diggante fédération bi ak Puma ci est naa leen jox leer ñi ko bëgg am nee une leen dañu jox information yu de source sûre wear and tear. C'est ci kanam tout le reste scorché on vous donne en exclusivité ce qui se passe aujourd'hui autour des maillots de l'équipe nationale du Sénégal su baaxee ci la gars yi su bonee suñu la